seen biir rek ak seen mbaax ci lay dellu seen jataay bi feex ji ci am ju ñépp gis la waaye jàpp naa ne ginnaaw euh, coobaree suñu borom seen yéene ju sell ak seen euh, yitte ju kawe rek moo moom leen ci yàlla fayee kon noo ngi leen ci ndokkeel di ñaan yàlla nangu ko te defal leen ci lu kawe njort ni nga ko waxee kon nu fas yéene ànd ak yéen ci jataay bi incha allahu taala ci eh, noonu yi ko waxee naka lañuy ñuy màggale macha allah kon waxtaan wa tàmbali na te ñu ngi koy soññaat ñi nga xam ne ñoo ñu doon ñoo ñuy topp ci internet bi ah ceddo di leen wax ne baaxe leen xibaar bi ñi ko yëgut maanaam li ñuy wax partagé leen eh, la vidéo partagé lu live ñu permettre maximum de personnes ñu xam naka la ñu màggalee ndax dañu war a yor suñu téléphone di selfie ndax dañu war a tëju di jàng alxuraan di jàng xasida est thématique bi am na importance bu tax nit ñi war cee mën a gën a bàyyi xel l'introduction le sommaire jaadu na Pape Sidi xam nga coow li lépp lépp lépp boo ko dajalee màggal gi rek moo ko waral kon euh, sëriñ bi ci boppam moo woo mbooloo mi woo leen ci jaamu yàlla bi gën a kawe ci xeeti jaamu yàlla yi mooy ak cant kaay leen santale ma yàlla waaw nit ñi nag buñ ñëwee yow mi leen woo mm. yaa jëkk sant yàlla mm-hmm. kon am na lu la yàlla defal ba nga koy sant mm-hmm. loolu ñi nga woo war nañ koo xam mm-hmm. ñoom it buñ ci gisee seen bopp gën a sawar ci cant gi gën cee mën a jëf loolu moom jaadu na gannaaw nag sëriñ beenu woo mm. te kii fi toog doomam la sëtam la ah nun jàmbur yi nun ceddo yi ak nun nun nun bandi ñëpp ñëw na <laughs> léegi nag dañoo bëgg a xam sëñ bi lan la nuy doyee ak lim nuy doyee hmm. lu tax mu xëy rek woo ci ak nun koy defee wuy si nan daal moo nu waroon léegi nag balay sa tey moom yëfi séeréer ak tukkuleer lay doon rek waaw ndax yàlla balay sa bisimila kon ceddul defe naa laaj na laaj bu am solo nun ceddo yeeg nun wéyu defe naa dajaloo na ñëwuy si woote ku kunu kunu kunu sopp lool ndax xëy na loolu mooy suñu dénominateur kuma waaye li mu sant naka lañ ci mën a jariñoo naka la ñuy màggale jërëjëf sëñ Pape Sidi jërëjëf sëñ sëñ Mouride Sadikh yéen fu ngeen féete rek foofu lay féete bu soobee yàlla fu ngeen féete rek foofu lay féete waaye xam ngeen ne bis bi bisu sant yàlla la maanaam suñu sëñ bu mag bi dañoo woo ci ñu santale ko yàlla ndax Cheikh Abdou Lahad mu baax ma daana wax ni bi nga xamee ne jógee na fi bis bi di dem ca tukki ba suñu borom da doon def at mu ne nattu yi dañ koy ful maanaam liñ ko natt ci at mi bu déwénee ñaaram lañu lañ ci lañ la ñuy dajale teg tegaat ko ko at ma ca topp ñu ñu dajalewaat lu toll noona ñu teg ca lu na toll tegaat ko ko maanaam dañ koy ful at mu ne bu juróom-ñaari at yi mat ak lu topp suñ borom tàmbali nag di ko fay at mune ne itam lam ko fay bu dee benn bu déwénee ñaar lay doon di dox moom noonu nee na ba sëriñ bi ñëw njaareem nee na bi mu ñëwee njaareem nag ca la wax nag ne mhm. man day xéewal yi ma suñu borom faye ci mhm. bis bi ak ci tukki bii kawe na sama njot ba tax na maa ngi sàkku képp koo xam ne sama mbég sa mbéga bu bis bi ñëwatee nga ne ma ci sant la yàlla loolu kon moo indi cant gi nga xam ne eh, bis la boo xam ne sant yàlla lañ ci sant subhaanahu wa taala maanaam bis bu rëy rëy la bis boo xam ne yàlla rek lañ ci sant loolu boo seetloo ci kaw suuf yaakaar naa bëriwut mhm. bis boo xam ne mbooloo dañuy daje ci eh, ay lim yu bare bare bari ngir sant yàlla subhaanahu wa taala sant yàlla ci xéewal yëpp yim nu defal nun ndax boole gim nu boole ak sëriñ bi lool lañuy jiital ci sant gi ñu koy sant waaye sant itam ci xéewal yi mu defal sunu kilifa loolu yi lu lu rëy rëy la xéewal yooyu mu ko defal nag buñ ko doon tënk yu bare bari la bala maa ñëw ci nit ñi kii maanaam jëmmi xéewal yi xaw ci am bunt am na ci yoo xam ne sañ bi wax na ci wax na ne ca géej ga la ko suñu borom defee abdan xaalisan lillahi mooy jaam boo xam ne yàlla séq ko kenn xam nga abdullahi bariwul abdurazaq nag bari na mooy jaamu jaamu yàlla mi maanaam turu yàlla mi yore wërsëg jaamu kii wërsëgalee jaamu ki yore xam-xam jaamu ki yore barke jaamu ki yore nangam loolu bari na waaye abdullahi nag allah loolu ci géej gi la ko ko suñu borom defe mu nekk jaam boo xam ne yàlla séq ko kenn abdullahi yonente bi rek lañ gis ci alxuraan suñu borom waxam ne wa lamma qaama abdullahi yaduuhu kon loolu lenn la ci ñaareel ba mooy ci géej gi la ko suñu borom defe muy xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu it aw la ci ci ci ci ci yàlla ak ci dox jëm ci yàlla bu kawe kawe kawe mm-hmm. ndax mooy la ma wax ne bushirtu anna rasulallahi qaddamani maanaam bégal nañ ma ci ne yonent bi jiital na ma fi kanam mboolem ñi koy liggéeyal loolu nag daraja ju kawe joo xam ni wax na ne ci tukki bii la ko amee ci tukki bi it ci lañ koy waxee sirrul quraanil karim sekkareb alquran ak leeruk alquran ak barkeb alquran waaw loolu it ci xeeti may yi nga xam ne wax na ko nga xam ne mallakani alqurana rabbul alamin nusi ali nuurul lisaani wal kitab azmana xidmati ci bërëb yu bare bari yoo xam ne junj na ko wax na ne itam ci tukki boobu yi la ko suñu borom joxe yenn awraadi turuq yëpp tariq yëpp ta euh, wërd ya ca ne ci tukki ba la Sayyidna Jibril ñëw nangu ci moom mboolem lu mës a jël ci nit yónnante bi nag joxalaat ko ko boppam loolu yi ci tukki bi la ko amee nga xam ne ku ko jëlee ci moom jëlee nga ko ci ku jëlee ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mboolem awraad tariqa yëpp ba mu ñëwee ba gànnaar nag la doog a jot wërdu wërdu boppam ba tey bokk na ci yi suñu boroom defal na ko ko ci mooy ca tukki ba la mel ne jant ci leer di leeru kese goo xam ni li xam naan ci leeru yonente bi sallallahu alayhi amul genn ruux gu ko mën a naan ndax ca jolof Sidi Ahmadu Dis mu dafa wax ne mas na wax ne jàppoon na ne genn benn jenn jëmm mënta naan lépp leeri rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba nim ci tegee bëtam te ba mu ci tegee tam kon loolu mooy mooy ruuxam moo naan ci leerug rasulullah sallallahu alayhi wasallam loo xam ni loo xam geneen ruux mënu koo naan ba tey loolu ci géej ci ci tukki boobu la ko waxee bokk na ci itam lim ci wax mooy nee na ci tukki ba ko suñu borom boolee ci waa ahlu badrin addani allahu min ahli badrin ak lam ci wax lépp wax na itam ne ci tukki ba ci la ko suñu borom naaguloo ci naaguloo iblis ci moom nga xam ne iblis mënatu ko yàqal seytaane mënatu ko yàqal loolu it ci tukki bi la ko amee ca ba muy dem rek ay yasa minnillahu inda jéewali iblisa isnadaytuhu bi yaawali wax na itam ne ca tukki ba ay xeeti tuyaaba yu bare bare bare yum ci wax xam nga am na mbindam moo xam ni len li gën na mu sa sekul atu waaye am na meneen mbindam moo xam ne da dajale mboolem fu mu jaar ak lu mu def rek mu bind ko ci mbind moom ñu bari am nañ ko wax na ca ne jamono yam nekkee maayomba la ko fa suñ borom faye da ko suñu borom da ko da ko caa fayee mu mel ne mbooleem yonente bi jamono yi mu nekkee ci xat-xat yi mook saxaaba yi la leen ca suñu borom fayee moom la ko fayee ca diir ba nekkee maa ba mu ñëwee na itam la ko suñu borom fayee mooy mbooleem nit yàlla ak gaa yu baax yi fi mas a jaar ñëpp lañ mas a def ci lu baax ci ay farata ak i na ak mboolem lu yàlla sopp ak lu yàlla gërëm lañ ca amee yàlla dajaleel na ko ko fayee ko ko ci ñaari at yooyu mu defee ca ca lambar ne ak yeneen i wax yoo xam ne am na ci yoo xam ne moom ci moom day wax ne moom moom moom moom sañu koo bind am na ci loo xam ne sañ naa koo bind sañ naa koo wax am na ci loo xam ne na sañ naa koo bind kese waaye sañu ma ko wax am na ci loo xam ne na moom sañu ma koo bind sañu ma ko wax waaw kon xeeti may yu bare bare bare yoo xam ni tënk na ko ci Cheikh Mouhamadou ñu daga na ci irwaawu nadim indi na bayit yi ko sëñ bi tënk yoo xam nee na sax am jur ay mujizaat la moom wa fiya sab'u mujizatin te mooy yàlla notal na ko noon yi te ca géej ga la ko amee yàlla suñu borom may na ko fa xam-xam boo xam ne nekkul ci téere du lu jàng xam-xam buñ dul jàng ci téere mooy allamnaahu min ladunnaa ilman ilmu laduni yàlla itam def na su rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bég ci moom ba àgg ci di ko puukarewu fi kanam ambiya u ya ca des nga xam ne bokkul ñoom ci seenu xeet leen wax ne am naa ci sama xeet koo xam ni mi ngi nii di di bég ci moom bokk na ci la ko ci yàlla fa mooy def képp koo xam ne dara ci texe mi ngi soxal di nga ko sopp da nga koy bëgg bokk na ci itam iblis naagu ci moom a képp ku yàlla rëbb rëbb duñ mën a yàq dara ci mbiram ba tey malayka yëpp sopp ko jinne itam ñi ci gëm ñi ci gëm yàlla sopp ko xam na loolu lii ñuy wax rek mooy li jot a wax loolu rek daa doy ku ne xam ne nag sëñ moom dara feesul bëtam te ku ku ku yaa bët la itam te lépp lu ko yàlla mayit fi mu ne ci booy xool ci mbindam rek dangay gis ne lum sàkku ba am ko rek da gis mu daal di sàkku war leneen daana wax mag ñi ne leen lu ci waay am ci yàlla na ko jéggi te xam ne lu ko kawe ma ngi ci kanamam mi ngoog moo tax la ko ca yàlla defal moom ci tukki bi moo boromam rek ñoo ko xam loolu nag moo tax mu ne képp koo xam ni sama mbég sa mbéga bu bis bi ñëwee nanga ma ci satle yàlla dig na dig na ñi ko ci ñi nga xam ne ñoo koy fonk di am na lu mu leen ci dig mooy képp koo xam ni yaa ngi ma koy fonkle suñ demee yowmal xiyaam de li ma ci suñu borom fayee du la ump loolu na xam nga bunt bu am solo la mooy nun suñu kala nga demuñu fenn ah. man a te la ko ci yàlla fayee bu fekkee moom boo ko màggalee ci anam gi mu ko bëgg rek du la ump loolu am solo la nees ko koy fonkale waaw nees ko koy fonkale nag <clears throat> loola loola mi ngi tàmbalee ci xam ne ak cant la maanaam ak jaamu yàlla la jaamu yàlla la koy tax mu am ak ruux mooy yéene nit kii ñëw di màggal si fa mu tàmbalee mooy daa war a dem Touba ngir sant la yàlla sant yàlla ak sant yàlla sëriñ bi yéene jooju bu ci amul jëf lay doon joo xam ne du amuk ruux mu mel ne jëmm ji amatuk ruux yéen def dara wax ne innamal a'maalu binniyaati wa innama li kulli mri'in maa nawa maa nit ki lim rek lay am yéene mooy ruux ak jëf kon boo yéene wut doo am dara yéene mooy la ca jiitu mooy ba nga jógee rek nga yéenee màggali ngir sant la yàlla sëriñ bi sëñ lu Mbakke mu baax ma nag wax na ni ñuy màggale mhm. wax na juróom mbir yoo xam ne ci la ñuy màggale ba tax na mhm. loolu rek mënoon nañ ci yem Cheikh Saliou Mbakke mhm. sunu sëriñ bu baax booba itam moom it daana ko feddali ci ñaari anam yoo xam daa tënk daa tënk li sëñ wax sëñ Fallu dafa wax ci xam nga màggal gi xëy na historique bi sax moom wax loolu lépp waxtaan ngeen ko xam naa ba tey sëñ bi ba mu koy woote kenn ku ne da ko daa defe këram Cheikh Fallou sëñ Fallou Mbacké mu baax moom moo ko woote fii ci Touba bi nga xamee ne tam eh, woote na koy itam ci an-Nahjul Qawim bu Cheikh Mouhamadou Mamoun Niang indi na fa discours ba nga xam ne moom moom la ca defoon ca màggal yu njëkk ya wax ne wax ca ne bal azimuhu bi tilawatil quran na yeen ci li ci jiitu ci liñ koy màggale mooy jàng ci alquranul karim boo gisee sëñ sëñ fa laat dafa digloon murit bu ne bu màggal gi jub see nga jàng ñaari kaamil benn bi nga yéene ko addiyee rasulullah sallallahu alayhi wasallam benn bi nga def ko addiyee si Ahmadu Bamba radiyallahu anhu siñ seelu ba mu ñëwee daa mel ne yokk na ci beneen kaamil boo xam ne dañ ko yéene dañ ko ko yéene moom waaw ndeysaan ci ga nga xam ne kon day mel ne kon ñetti kaamil murit bu ne war na koo jàng bu màggal gi jub see ngir def ko addiyee rasulullah addiyee sëriñ bi ak it ki fi toogal sëriñ bi loolu li sëñ seelu def day firndeel ki fi toogal sëriñ bi moom lañ ko yéene loolu dëkk bi noonu ban fiy jàng seetlu ne booba ñi nga xam ne mënuñoo jàng sax dañuy woo ay gone ñu jàngal leen kaamil ñu ñu am luñ leen neexal kon jàng alxuraan mooy li ci jiitu ndax alxuraan mooy li jiitu ci lépp sëriñ bi waaw Sëriñ Tuubaa alxuraan dafa nekk ndonal boppam loo xam ni suñ borom moo ko ci defal tawféex ju kawe joo xam ni séq ko kenn te ko wutuloon sax kër li ñuy wax daaray kaamil ci Sëriñ Tuubaa lañ ko njëkk xame xamee boo xam ne jàng alxuraan rek lañ fay def bëccëg bi dañ jàng di xool guddi gi dañuy tari nga xam ne euh, bëccëg bis bu ne dañ jàng ñeenti kaamil guddi gi ajuma ñu jàng juróom-ñaari kaamil mu tolloog limi julli yi nga xam ne moom lañ julli ci ay bis loolu kon mooy li ca jiitu muy jàng alquran karim suñ fal teg ci ne wa zikrillahi taala bi anwaihi mooy tudd yàlla ci xeet tudd yàlla yëpp nag tudd yàlla yi la ci jiitu mooy jéggalu yàlla istighfar ak salaatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam tudd baatub laa ilaha la yooyu xeet tudd yàlla yoo xam ne mënoon nañ ci wax lu bëree bëri moom it ci yàlla yi nga xam ne suñ fallu wax na ne ci lañ koy màggale mu teg ca nag wa qiraatul xasaayid xasaayid yi tudd yàlla la waaye suñ waaye waaye waaye suñ fallu da koo jagleel maanaam mu mel ne moomit mbirum boppam la da koo ber li tax mu ber ko nag lu am solo la mooy tudd yàlla yëpp am solo waaye dara gënu cee màgg yii sëriñ bi def defal nu ko bàyyi nu ko te daa dajale itam fi ne xasida sëriñ bi daa dajale mboolem xeet tudd yàlla yi boo ci duggee dangay ngay yàlla da ngay tagg suñu borom dangay ngay tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da ngay julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay ñaan ñaan yoo xam ne yow mënuloo ko sa bopp bu doon yow kese waaw da ngay def li ñuy wax munaajaat de yàlla yu kawe yoo xam ni sëriñ bi da ko ci biir xasida yi kon xasida dafay ak togg la goo xam ni xeet tudd yàlla la goo xam ni gu gu kawe gu rëy gu am barke goo xam ne yàlla da koo nangu ci itam boole ci xabila rabbul alamina kalimi loolu la sëñ bi wax kon jàng xasida benn euh, pàcc la ci anam gi ñuy màggale mu teg ci nag wa wa itaami taami lil yataama wal masakin mooy joxe aw ñam joxe aw ñam mooy bernde bernde sëñ bu mag bi joom moo ko moo ko digle woon wax nekk bu ñëwee lu ci waay mën na ko ci def ne lu ci waay fonk itam na ko ci génne lu ci waay rafetle na ko ci génne loolu dañ koy nettali waaye la ci gën a wér mooy li mu waxoon ne li ci tam li dale ci ganaar ba ci gileem loolu moom Cheikh Seydou daana ko nettali mu baax man day radiyallahu anhu wax ne dale ci ganaar ba ci gileem lu ci waay mën na ko ci defe na ko ci def bu ci kenn def dara mu rëy ba nga yéem ko waaye bu ci def dara kenn def dara mu tuuti ba nga xeeb ko wax ne itam nit ñaar buñ dendee kii di ko fonk kee da koy di ko di ko di ko bañ a fonk ka koy fonk waxtu danañ gis la muy rawee ka ka koy bañ fonk mm-hmm. waaw kon joxe aw ñam ci la bokk joxe ñam woowu nag benn mbir a ngi ci mm-hmm. mooy léeg-léeg ci mbind sëriñ bi dangay gis muy wax ne murit wër ak xéwloom xéwloom wërta bari mm-hmm. waaw na sax ne malayka yi buñ gisee murit buy xéwlu lu bari dañuy jooy ngir yërëm ko xam ne kii maanaam li mu bëgg du ko gaawam waaye xéwlu xéwlu bernde yi ak bernde joxe bernde yi ñaar yu bokkuñu. xam nga suñu fond wax ne lil yataama wal masaakin mooy ñi ko aajo wala ñu koy jox ñi ko aajo wala koy jox am na loo xam ne itam mas naa koo dégg ci sëñ Moustapha lay mi nga xam ne ku ne xam na ko di borom xam bu mag ci yoon wi mu ne ma sëñ sëñ Abibu Mbakke mu baax ma moo ko mas a ne sëriñ bi mas naa wax ne képp koo xam ne amuloo loo mën a def ci màggal gi loolu mu wax li dale ci ganaar ba ci gileem amoo amoo loo ci mën a def nee buñ ci àggee nanga nga dem ca fa ñuy defaree bernde ya bu sottee nga xéwlu ca te ànd ca ak positif te xam ne la ñuy fay ña ko doon def ña ko doon defar moom lañ lay fay yow waaw xam kon buntu la bu am solo ci ñi nga xam ne mënuñu. profession la ci màggal lekkat yi képp moo joxekat yi ñam yi bu seen pëstéef yemee rek moo baax na. <laughs> déet waay xam <laughs> nga. Mbacke Balla nee na lekk rek. déet déet déet déet Pape Sidi déet waay déet waay. gi képp rek boo na nga jël fee ci lekk gi. ndax <laughs> kuy togg moom defe naa kuy lekk la. waaw waaw waaw. maanaam sëñ Tuubaa di ne wal taj alul juwaa taxaamakum. Mm-hmm. maanaam néewal ak lekk loolu ci murit la bokkoon. maanaam oyofal maanaam bañ a xewlu xewlu yu bari mu des ñaari mbir mu des ñaari mbir mooy jokkuk bokk suñ seelu suñ fallu da caa teg wasilati rahim mooy jokkuk bokk wax naa ne juróom mbir yaakaar naa la wala juróom benn mbir sax jàng alxuraan tudd yàlla ci xeet tudd yàlla yëpp ak jàng xasida ak bernde ak itam jokk ak mbokk la ca teg ak siyaare jokk mbokk nag mooy ñi nga xam ne ñi ngi ci jokk bokk bokk gi jëkk mooy bokkuk lislaam gi ne ko suñ seelu daa waxee ak bokkuk diine ak bokk pas-pas ba tax na googu bokk moom moo jiitu ñi nga fi xam ñu say kilifa nga fexe ba siyaar leen te yàlla rek tax ñi nga xam ne say mbokk lañ te nekk ci dëkk bi itam nga fex ba siyaar leen te yàlla rek tax yonente bi daana wax ne bu dee yow ku la siyaar nga siyaar ko ku la siyaaru doo ko siyaar nee na yow jokkoog mbokk jokkoog mbokk mooy nga seet ña nga xam dañ lay dog nga dem jokk leen loolu mooy jokkoog mbokk dëgg-dëgg loolu kon benn pàcc la ci ba ca topp rek mooy siyaara siyaare bërëb bi gaañu baax ñi gaa ñu baax ñi ñaar lañ am na ñoo xam ne ñi ngi ci biir seen dëri àjjana yooyu ci biir suuf waaye am na ñoo xam ne ñi ngi dund ci kaw suuf ñaar ñëppi nag képp ku màggal si war naa feex ba siyaare leen jiital ci nag borom màggal gi Cheikh Ahmadou Bamba radiyallaahu anhu rasulullahi sallallaahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne xabru boo gis benn mu nekk rawda min riyaadil janna mooy dër ci dëri àjjana yi wala mu nekk am pax ci paxi sawara yi ku ne xam na ne fee sëriñ bu mag ba tëdd dërub la boo fa duggee yaa ngi biir ajjana ajjana suñu borom da wax ne lahum ma yashaauna fiha mooy boo fa duggee loo laaj mu jox la ko tax kon bërëb yu sell ngi yoo xam ne kii fa dugg war na ànd ak teewlu teewlu nag jamono ji lu jafe la ndax jumtukaay yi ñu bari day ñëw di photo ko ki ba ba ba dem rek te duñ amuk teewlu waaye boo fa duggee na nga xam ne yaa ngi ci bërëb boo xam ne loo fi laaj suñu borom mu jox la ko ndax yaa ngi ci rawda min riyadil janna ci dog boo xam ne dogu àjjana la maanaam dër la boo xam ne ci dëri àjjana la jardin ci jardin àjjana Mbàkke wax na ko ba nu dégg ko ndax nun dañoo tëxët kuy wax ak dof da nga koy wax li war a bàyyi dugg ci bërëbu ku tedd ki di photo ak yooyu baaxut du ay tëgg de waxuma ne baaxut de waaye du la gën maanaam am na ci ki nga xam ne ñëw na ci bërëb boobu te xamoo kañ nga fay del si waat fi ne maanaam déwén doo màggal si mm-hmm. man nga génn rek nga faatu bala bala yàgg maanaam da nga jàpp ne tey jii mooy siyaar bi mujj sama siyaar mm-hmm. foofu nag war ngaa tal leneen lu may photo woo xool yi bërëb ak yeneen ndax sëriñ bu mag bi ni ma ko waxee léegi nga xam ne bokk na ca lakk suñ suñu borom defal ci géej ga mooy shahid la buy dox ci kaw suuf te suñu borom wax ne wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim maanaam mi ngi dund ci dund goo xam ne bokkut ak suñu dund gi teewlu dundam googu nag jéem a jéem a am jokkoo ak moom moo ëpp solo yeneen yi nga xam ne mbiri matériel la yooyu dalay fab bi dalay yóbbu da da lay fàbbi mhm. maanaam te sëriñ moom jugu fi te ki ko siyaar si maanaam dana ko gis loolu yoon te wax na ko ba ci sa mbokk mi nga xam ne dafa nekk ko siyaar see mu mu xam ne ñëw nga yëg la mhm. eh, jox la yitte mhm. te bu fekkee da ngaa ñëw nag sëriñ bi gis la ba teg la bët ngay xool di photo ak leneen xam nga lool di teggin nga di ko wëlbatiku di xool leneen loolu di teggin ma tax na bërëb bi dafa aaje ay teggin yu yu mat sëkk yuñ ko war a siyaare yoo xam ne nit ki war naa tar leneen ñaar ba itam ginnaaw fii moom loo fi sàkku yàlla jox la ko ndax dër la ci dëri àjjana yi te suñu borom nee na lahum ma yashaa'una fiiha àjjana boo fa duggee loo laaj rek ma jox la kooku war ngaa jéem a laaj te waroo laaj nag mbiri adduna ndax yooyu tuuti daal maanaam yàlla jeexalul dara te mboolu mas a may nit rek mën na koo jox ku ko soob te lu a am ci yàlla itam yow jàppal ne yow bul ko jombale sa bopp Cheikh Mouhamadou Mountakha de xam ne buñ jombale suñu bopp dara kon ka fa toog war naa sàkku ci diggam ak boromam masalan ak ëllëgam ak diggam ak eh, maanaam maanaam maanaam bu njëkk yu deme noonu yooyu war na cee sàkku lu bare bari fa fa sëriñ ba kon mi nga loolu dimension dafa dem ñaan ko oto mbaa visa ndax nee na mbiri àdduna yi dafa tuuti mbokk taalibe yi sama sama classe gi laay wax de dañuy dugg ne ko Mbàkke na mu dimbale ci visa bi dañoo bëgg a jël vol comme loolu dafa tuuti xam nga xam nga mi ngi mel ne tey boo toogoon ak président bii ci bii ci réew mi. di ko ñaan maanaam ñaar fukki ñaar fukki dërëm yi caaf. maanaam loolu ñaar fukki dërëm yoo jënde gerte. xam nga loolu président bi ci moom da lay xeeb. da lay ndax liñ ko ñaan amul solo. wala nga nga ñëw siyaar si ko mu tegal la ay lekk nga nekk ci lekk ya ba fàtte moom président bi mm-hmm. xam nga loolu moom ba tey maanaam day xam na yow. yeyoo woo muy jataay ak yow te ñoom seen dund gi dund gu sell la goo xam ni boo fa àggee am na jokkoo goo mën a def ak ñoom li ngay wax lépp ñu ngi koy dégg loolu moom lii mooy jàngale bi leen dara bi arrangé ah, mais maa ngi rectifié wu maa ngi jàng parce que buñ ma tegalee bernde yi ma topp bernde yi ba fàtte ne sëriñ bi dafa am lu ma sant mooy santale ko sama borom te defuma ci dara dugg ci jumaa ji di selfie di snap mm-hmm. wala ma nekk di tiktok ba fàtte ne man war naa teewlu bërëb boobu xëy na dootuma fa duggaat c'est très intéressant ci sama diine. sànq am am na beneen bu am solo mooy ziyaare euh, aynu rahmati aynu rahmati duñ ko dañ ko bàyyi xel waaye teen na boo xam ne sëñ bi moo ko gaslu woon ba bënn fi kanamam itam mu def ci ñaari xasida ñaan ci itam ñaan yu am solo am na ñaan am na ci xasida goo xam ne da cee dafa wax ne dumma fuaada charibin ila charibin minha ila fu afidatil ladina faazu bil ila képp ku ci naan yàlla na nga jël xolom boole ko ca xoli gaañ a texe te ñaanu sëñ bi sun borom du ko delloo sun borom defal na ko lépp lu ñaan rek mu may ko ko te ginnaaw ñaan na ne ku ci naan yàlla na ko yàlla jël xolom boole ko ca xoli ña texe anil xuloo birsil biha kulla uyub képp ku ci naan yàlla na yàlla raxas sa xol di génn ci mboolem sikk yi ci ne wa indaka jaalha mafatihal ghuyub nga xam ne daa ñaan suñu borom mu def ko muy kale bi ubbi ceeb yi xëy bu yi kumpa yi loolu gis naa ne war naa tax képp koo xam ni màggal si nga itam nga fexe ba barkeelu ci ndox moomee lu am solo la ci ndoxum teen boobu léegi naan naa ci ñaari pot mbàkke macha allah naan naa ci ñaari pot yu mag macha allah naan naa ci ñaari pot waaye fi mu ne boo seetloo <laughs> sëñ du wër naa ak yow dëkk bi. wallaahi. ci ci biir màggal gi ci ni mu waxee ak yow nii. ni ko waxee wër naa ak dafa am sànq loo wax lu am importance. mooy nees di def ba ni nu xamee ñeneen ñi lu amal njëriñ àdduna parce que l'islam ñëwul pour arabe. Mm-hmm. l'islam dafa ñëw pour doomu aadama pour humanité. waaye bu fekkoon ñi nekkoon euh, ca Makka. dañoo faa toog rek yemale ko ci seen biir mhm. xëy na duñ ci jot waaye il a fallu ñu génn di dox li ko wasaare mhm, mhm, defe nga ni jamono dina yegg si ba ñu am Serigne Touba li mu am tey ngëneel ci doomu aadama yi ñu fexe ba ñeneen ñu bokkul ak ñu nu xeet ak ñu nu làkk ca bitim réew ya mën koo jariñoo ca doomu di Sadi Pape Sidi Serigne du sëriñu dëkk du sëriñu région du sëriñu réew du sëriñu xeet sëriñ Tuubaa euh, damay wax ne nit ñi li ñuy umpale léeg-léeg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam lépp moom la mm. ordre de mission yi nga xam ne moom la ko yàlla joxoon bi muy dem yóbbu ko da ko fee bàyyi ndax borom xam-xam yi ñooy doon yonent yi mm. léegi nag boo occupé benn bureau privilège ya nga xam ne moom la borom bureau bi yoroon da nga koy jël mm. ak fonction yi li nga war a liggéey gis nga wama arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin mm-hmm. wama arsalnaaka illaa kaafatan lin naas ak xeet yooyu ay fonction la mm-hmm. yoo xam ne ci biir mission yonent bi bu ci ne ab raayal lislaam la bu ñu samp boo xam ne yonent bi du ko buddi yóbbu ko mm-hmm. bu ci nekk nag ci raaya yooyu yëpp ngay gis sëñ Touba liggéey na ba yonent bi jox ko raaya boobu maanaam manifestation wama arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin da nga koy gis ci sëñ Touba gisoo ni muy day ñaanal mbindeef yëpp di ñaanal jullit yëpp mm. di beral ñaan xeetu yonent bi àgg sax ci ne li ma yéene jullit yi aju ci man mm. moom laa yéene jullit yi ajuwul ci man kon moom amul discrimination c'est-à-dire quand on parle d'un totalitarisme positif mm. à tous les niveaux yaa ngi ci sëñ loo xam ne boo ci tàbbee maanaam sa dund yëpp mën na ko contrôler ci nga jëm ci yoon wi nga xam ne dala yóbbu ci sa borom te dara lu négatif nekku ci jàppal sëñ Touba l'islam nag ni mu doxee euh, loolu ku jàng histoire rek tuuti di nga ko xam mm-hmm. yonent bi moom la yàlla yónni naa Jibril muy wax ak moom moom am na ñu mu waxal bu dee bu dee Seydina Aboubacrin bu dee Soxna Xadijatu bu dee sedd Seydina Ali muy yaatu ba tey ñu ne yonent bi am na ñaari milliards yi taalibe ci kaw suuf wala lu këpp kon dafa am euh, doxin woo xam ne ca la lislaam tasaaroo mm-hmm. mooy booba jamono biñ àggee ci ay lettre yonent bi daan jox nit ab lettre dañ koy da koy bindulu par exemple mu yónni ko ci Saam wala Yaman wala feneen ne ko boo demee neel buur ba lii maag ko jox euh, na ma wuy si ci woote bi ndax yàlla kat bi may wooteloo wutloowu ma ay frontière boobu cax xijaas bi yonent bi ne amul frontière frontière yàggul les états nations c'est pas yàggul par exemple Makka ulamaaw yi 1921 lañ fa jëkk def fatwa par exemple donc Makka ci boppam Arabie Saoudite bii ñuy wax amul bi mu juddoo yàggut donc ak yeneen dëkk yëpp yi nga xam ne ñoom ñoo ko wër ñu wax ay région d'ailleurs boo xoolee ni ñu daggee zone yooyu dañuy def ay xeet lu metti comme kurdi yi dañ leen a dajale ci ay dëkk yu bokkul ñu tasaaroo ñoom 30 millions lañ waaye bokkuñu tuareg yi fii en Afrique gis nga ko boo demee frontière Rosso Sénégal Rosso ni gis nga ko. Mm. ñii de dañuy ne fii ñii ne fii. Mm-hmm. kon frontières yi ak yooyu nañ xam ne tubaab yi ñoo ko fa indi. Mm. waaye sëñ tubaab moom bi muy liggéey. humanité bi yëpp bëgg nañu xam mbiru ndax moom projet mooy fexe ba jël nit ñi wan leen ne yonent bi mooy modèle bi parfe roy leen ci moom. moom amul benn intérêt ci ñoom bu budul dolli yonent bi ay soppe ak ñuy roy ci moom. loolu mooy moo sëñ bi yoon bi rek lay xool. loolu nag mooy yëf yi. Euh, li ko Ceddo expliqué. Hmm. ndax yaakaar nga ne loolu Serigne Touba gii danañ dem ba jamono hmm. euh, ni mu amee ay murit fii ci Sénégal mu amee ko ay murit foofu ca Japon mbaa ca euh, Dunkerque wala ca États-Unis ndax njort nga ne loolu. Pape Sidi loolu tàmbale na xanaa moom loolu moom <laughs> na murit yi fi ne. <laughs> waaw bari na def na yàlla def na tawfeex ba. <laughs> moom moom moom ñi ngi fépp. Hmm. dëgg la nag nun murid yi ci moom dese nañ ci dese xamle jëmmi sëriñ bi ak ak ak li xam nga tubaab yi daa mel ne seen itte moroon ak murid bu mu génn kajoor ak bawol loolu def nañ ci eh, maanaam maanaam maanaam yitte ju rëy joo xam ni itam xaw tuut boo xawee ñàkk yaakaar sax mën nga ne ki man mën nga ne xaw nañoo am am am am lu bari ca lañ doon sàkk waaye nag murid yi moom fi ne nii génn ñi ngi génne eh, maanaam wootab sëriñ bi di ko gën di tasaare Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké mu baax ma mhm. ku ne xam na ne ay Amérique ak fu bari yóbbu na ko fa ñu bari di tuub ci yeneen i xeet mhm. waaye foofu faw nag nun murid nu xam ne Serigne Touba mhm. maanaam maanaam jaam jaam ñëpp ko bokk Cheikh Babul Cheikh Sidiye ca gànnaar dafa wax ne a Cheikhu Ahmadou ni'matun awlaha haadil xalaa'iqa mbindeef yëpp ko sa bokk maanaam xéewal la goo xam ne yàlla da ko baaxee mbindeef yëpp xam nga xeet ak ak ak yeneen demee boo seetloo suñu mag bi ñam njëkk a yar da da caa génne woon xeet yii nga xam ne mooy teqale nit ñi ci ay xeet ak i couleur ak ay làkk ak yow ak waaso yi fi mu ne xam nga société wala dafa yàgg am ay ay classe sociale moom waaye sëñ bi nam ko dindee mooy da daa boole ci sëy ba ba noppi itam di jël métier mi ñii di def di ko def loo ñële di jël métier ma ñee di def di ko def ndax métier yi rek moo leen teqale ñii bay ak ñi nga xam ne dañuy ràbb ak ñii yat ak ñii tëgg léegi nag métier yu ndaw yii nag da ko daa def ña nga xam ne jàng rek lañ leen xamoon ñu ay boromi xam-xam borom ñii itam nga xam ne lii lañ xamoon mu def leen ay boromi xam-xam yoo jox leen ay daara jiitloo leen ay mbooloo kon mi ngoog waaw sëñ Basiru nee na ku masaa ñëw ci moom boo fi yàggee tuuti mhm. day def ci li yow li ñuy wax fahmul musaawaat mhm. mooy xamal la ne la lenn rek ngay gëne sa morom mhm. mooy gën ko ragal yàlla إذ أكرم العباد عند الله أكثرهم تقوا بلا اشتباه واعلم بأن ما تفاوت الورى بالعلم والدين xam-xam ak diine daal gën koo ragal yàlla gën koo jege yàlla rek mooy tax nga gën nit waaye amul leneen lu ma a tax nga nga nga nga gën nit loolu moom la defar ñoom ba boo gisee ñoom njëkk a defar moom xeet yooyu daa génnoon ci ñoom ñoom leen lañ xamoon mooy mbokkum taalibe te sëñ bi da leen wax ne ñëpp xamal leen ne ñëpp ay murit lañ ne leen nag ñi ñëwit it loolu it misaal mu gudd la ñi ñëw it mi ngi mel ne ab liir murid bi buy doog a jébbalu mi ngi mel ne ab liir buy doog a judd ne liir buy doog judd ndax xam ngeen lenn lu mën a jëfandikoo lu may meem meew mi balle ci wenn ndeyam ñu ne xamuñu ko mu leen murid noonu la demee buy doog a jébbalu yoon woo ko sëriñam teg la ko sëriñam dénk diggal ko ko loolu rek moo koy jariñ leneen mënu ko jariñ ne leen nag ndey bu ameem soow day feeñ ci ci doom ji waaye dara wax ne yéen maay seen ndey te man sama soow doy na sëkk te ku namp ci man di nga màgg te di nga am kattan te di nga am barke waaye nag na ngeen yem ci seen ndey ba keroog mu leen di feral bu leen leen nag bu leen bu leen mëq suuf ne bu ngeen mëqee suuf da ngeen di wéradi te ku ci wéradi mën ngaa mën ngaa faatu ne mëq suuf suuf si mooy adduna ak waa adduna waaye misaal mi li ko indi mooy mooy di daa def seen xel ne ñëpp murit lañ te loolu mooy li sax nag maanaam murit képp koo xam ne rek bëgg ngaa dem ci yàlla loolu nag mën naa am ci ñoo xam ni sëriñ bi lañ jokk am ci ñoo xam ne ci ñeneen lañ jokk waaye noonu li nu jàpp te gëm ko mooy lépp leerug yàlla ci ruux rasul lay lay sotti waaye lu waaye di am ci yàlla dana jaar ci Cheikh Ahmadou Bamba radiyallaahu anhu maa ni wax ne wa biitu raqi xisbaka alxufaada wa biitu raqi al ulama wallahu raqa bi maa lii qaada aqtaaba maanaam gaa yu mag yëpp kenn ku ne da nga jëlee ci moom tarqiyaat yi nga xam ne moom mooy mooy bàyyi ko fa suñu borom ci yow kon moo tax mu daa wax ne képp ku am dara ci yàlla doo ko baa na li kulli man lahu wilaaya kaw nii li xaaliqil baraaya aaya moo tax kon xam nga leeru yàlla yu mel ne bii nga gis rek kenn ku ne pot lampe bi bi la gën a jege fa ngay fa ngay fa ngay jëlee courant waaye pot lampe bi jëlee na feneen koo ko jëlee feneen ba ci central ba kon sëriñ bu mag bi moom moom ngi génn sax laaj bi li ma laajoon waaye jëmmi sëriñ bu mag bi moom yàlla ko baaxee adduna sëpp